suñu mbokk internet Diasporabi TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal fii si seen flash news ci seen chaîne Diasporabi TV waaw comme ni ñu koy faral di defee bu ay événement amee fii ci Sénégal ñun waa bi TV dañu leen koy toppal loolu moo waral ñu toppaloon leen élection présidentielle 2024 bu démb bi doon nag xaar am les résultats provisoires pour mën leen ko indil mu gën a leer ginnaaw ba sénégalais yi génnee nag démb daal di voté ñu seetluwaan ne Sénégal bu élection amaan mag ñi ñoo daan gën a génn voté mais démb les personnes d'âge mûr ñoom seetlu nañ ni ñoom itam bokk nañ ci ñu ëpp ñi génn daal di voté daal di tànn seen président bu bees bi fi war a utu Macky Sall gannaaw loolu nag bu ñu sukkandikoo ci RFM résultat provisoire élection présidentielle 2024 daal dinay génn Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom nag moo gagné largement ak 57,4% Amadou Ba deuxième position ak 37,9% Khalifa Ababakar Sall mo troisième place 3,8% candidat bu pur bi ñuy wowe Aliou Momadou Dia mom mo position ak 2,5% ki ci top di Ali Nguy Ndiay dal di am 1,2% Idrissa Seck nak mi nga mom réclamer chef de l'opposition mom mom un pour dong la daal di récolter ci élection présidentielle bi lii moo fi gën a fës ci ay ci seen xibaar flash news di leen jox di dig daje ci yeneen info yu gën a leer jërë ngeen jëf.